bul fàtte abonné bul fàtte abonné bul fàtte. dëkkam bii di Touba itam dafa am téere bu ñu wax al bidaya wa nihaya abul fida ibnu kasir moo ko def al juz u thani paas bi nga xam ne juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett la lii bay wax ca la ne yontu yàlla Isa dafa laaj euh, yàlla ne ko luy Touba. mu ne ko Touba garab la goo xam ne maa ko jëmbatal sama bopp léppam ajjana la xetam day mel ne nit càkkaam mel ne junjeer côté naan dootoo marati mukk eh, yontu yàlla insaan ne ko damaa bëgg nga nandal mu ci ne ko mënta nekk dafa am yonant boo xam ne kenn du ko ci jëkka naan am waa këram ñoo xam ne kenn du leen jëkka naan yow nag duma la rey dama lay yéegal ci man su ma demee ba ci mujjub jamono ma delloo si la addina ndax nga dajeeg lenn ci waa kër uh, yonent boobu ma lay wax su boobaa da nga gis ñoom kiimaan da nga leen dimbali ci noonu yàlla ya ñuy dajal ci jamono nga uh, xeex ba ñuy xeex ak ñoom waxtu woowu nag bu boobaa ñooña da nga gis julli jot te duñ julli ndax dañoo weesu ko tey it yonent du dikk seen gannaaw gannaaw gannaaw seenub yonent mu ne ko dama bëgg nga mosal ma tuuti ci ñoom mu ne ko de xeet lañu woo xam ne seen kilifa Ahmadu la tudd ñu am yar la ñuy doon ñu tooy la ñuy doon waaye man yàlla dama yëkkati seen daraja ba dañoo yem ak anbiya ay ay ay daraja danaa leen tàbbal àjjana ndax dañoo fonk di laa ilaha illa dañ koo fonk ca laa leen di tàbbalee àjjana boo demee àjjana ñoo cay gën a bari loolu mooy noonu mu am nag loo xam ne danoo war a delloo Serigne Touba njukkal ndax dafa am lum nu defal dafa wax ne yéen sama ñooñ bu leen jàkk bu leen tiit ci dinaa ci àllaaxira danaa leen defal loo xam ne buur du leen gën a rafet lu muy sol buur du leen gën a neex lu muy lekk buur du leen gën a rafet fu muy bët te kuy rey buur teggi leen loolu nag dafa am njukkal lu ñu ko war a delloo mooy bañ koo booñe booleeg dara dara dara dara dara wasalaamualeykum wa rahmatulah. bul fàtte abonné bul fàtte abonné bul